ومن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم الدين بقي دمبوكي جلتي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته تكتن الله سبحانه وتعالى أكيم لنو ديلو سيتي تي سين جوتا يال muy seen daara di senu daara jii di albayaan di jibe fii ci télévision nationale di RTS 1 aljuma ju jot ci waxtu wi li feek muy soob sunu boroom subhanahu wa ta'ala ñu di koy séqit ak boroom daara ji ci boppam muy ko baax ki imaam alxaaji ahmad Diop di ko ñaanal fu ñuy li ñu koy mas di ñaanal yàlla dollil ni ci moom wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ak dundule boole nu kook moom ak bépp jullit ci darajay yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama di ko jotalit ay ñaan fa tabarakallahu ak i ngërëm yu tukkee ci sang di soppe fa tabarakallahu rafetlu gu ñuy rafetlu daaraam ak njàngalem yi ci biir ak yar bi mu ci boole فتبارك الله وحسن الخالقين تامبالي كوتي سونو سانغ بو باخ بي دي سونو جيغينو بوب فتبارك الله دي ماما كينسي مو سيد شيخ احمد تيجان سي المكتوم رضي الله تعالى اك باجنم يو باخ soxna Adja Fatou Sy Dabakh mu sunu maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu ak yaayam di sunu bàjjen di soxna Adja Umul Xayri Sy Dabakh mu sunu maam Cheikh Alhaji Abdoul Aziz radiyallahu taala anhu ak it sunu baay bu baax bi ci Tiwaawan di baay Serigne Babacar Sy Dabakh njool fuuta mu sunu maam cheikh alxaaji abdul radiallahu taala anhu ñuy bég lool ci ay ñaanam ak ni muy teewlo sunu jotaay ak ni mu ñuy encouragé ci wàllu daara ñu koy dalale sunu xel di ko delloo kemi ñaan yi ak it fa tabarakallahu sunu sang bu baax bi it di soxna aja sofiyatu si jamil bu bàyyi sidil jamil radiallahu taala anhu ñuy bég ci seeni ñaan te di leen delloo kami ñaan yi di ñaan yàlla ci mbaaxam subhanahu wa taala yàlla nañu boole nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sunu soppe di sunu xaritit ku baax ki di alxaaji ibrahima saaxo booy ca Gàmbi amee fa cër bu bi mu fi amé secrétaire exécutif du secrétariat permanent sénégalo-gambien ñuy bég ci ay ñaanam diko dello it kemi ñaan yi ak soxnam su baax di sunu jigen fa tabarakallahu de aja khadijatu jaañ ci gambi waye ñuy bég ci seeni ñaan di leen delloo kemi ñaan di ñaan yàlla ci mbaaxam subhanahu wa taala yàlla nañu boole nangul ak El Hadji Soogi Fay ku baax fa tabarakallahu ca ngàpparu ñuy bég ci seeni ñaan di leen delloo kemi ñaan yi naka noonu it sunu goro di sunu xarit colonel El Hadji Cheikh Sar ci fii ci mbaaw ñuy bégee ay ñaanam ak i ngërëmam di ko delloo kemi ñaan di kemi ngërëm yi jël jotaay bii def ko mu nekk du jotaayam dana balaa dem fenn mbete albayaan jeexe muy sogo dem fu muy dem jërëjëf ci loolu colonel El Hadji Cheikh Sarr ak doomu ndeyam di El Hadji Leyti Ndiaye fa tabarakallah ahsanul xaalixiina nekkoon ca Amérique ak soxnaam di soxna ajaan ak jara ñu ngi bég ci seeni njaan te di leen delloo kemi ñaan di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla nañu boole nangul ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak sunu yaay ju baax ja ca Louga quartier ba di montagne ajaa maam Kumba Kan ñu ngi bég ci seeni ñaan di leen delloo kemi ñaan yi ak ajaa maane Sekk sunu jigéen bu baax ca mbake dimagu sunu soppe di sunu kilifa gu bax gi fi alxaaji rawhan sek ci chaîne nationale jërëjëf ak uh, sunu cheikh ba sunu soppe alhaji ibnu anas gay ci merma Sotrac ak soxnam su bax sa di sunu jigen Aja Lala aisha Kan ñu ngi bekk ci seeni ñaan di len delo kemi ñaan yi shuaibul Lish ñuy bég ci ay ñaanam ak rafetloom ci jotaayu daara ji di albayaan ak it sunu séddoo di ajaa ndey sali mbay doomu ku baax ki cheikh alxaaji rawxaan mbay ñaanal cheikh alxaaji rawxaan fu ñu toll wér ak wérle mucc ak mucc lek dund ak dundule yàlla nañu ko yàlla subhanahu wa taala boole defal ak bépp julit madame ña aja mariama diouf tabaarakallahu ak sunu ndeyu daara ya yépp ñuy bég ci seeni ñaan te di leen delloo tamit uh, kemi ñaan yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam yàlla nañu boole nangul ak it secrétaire bu ko baax di Adja Gassama ñuy bég ci seeni ñaan te di leen delloo kemi ñaan yi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam yàl ñu boole nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa tabaraka allahu axsana alxaaliqina di delloo ñépp ngërëm ak ñaan ku ko topp jot nañu yépp fa tabaraka allahu axsana ñu ngi leen di delloo ngërëm ak ñaan di ñaan yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam yal nañu boole nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam su ko defee rek mbokk yi di mbokki jullit yi ñu bokk rek xamandoo ne ñu ngi ci weer wu màgg di weeru safar tabaarakallahu di weer wi nga xam ni rabiul awal di gàmmu moo ci topp ñu dëgmal fan yu barkeel yooyu le di weer woowu yonent bi alayhi salaatu wasalaam gane àddina bu ko defee rek ñu nekk ci weeru safar safarit am lu mu wax ak ñun wolof di ko wax weeru diggi di diggi gàmmu la muy wax ak ñun nag nga xam sa bu tero xel dem ci moy ci la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yegge won febaram di febaram ba ko tëraloon ba alayhi salaatu wasalaam mu jaar fa wuy ju sunu borom subhanahu wa taala fàttalente wat lay don ak rek فتبaarak allah asnul xaalixiina gën a feddali sunu cefeel ak sunu doon di njaboot ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam te lu jiitu loolu nag di ca weeru koor ga mu mujj woor sallallahu alayhi wasallama sunu boroom woolu ko ca ba ñu génnee ca weeru koor googa tabaarakallahu alayhi salaatu wassalaam ca jamono yooya nag la tàmbalee woon doon di feeñee ca moom ay fenk te fi tàggatoo maanaam ay siiñ di tàggatoo dundam ga te moo di alayhi salaatu wassalaam jublu naa wuyu ji boroomam yooya nag di signe yooyu le doon signalé ci moom ñi am xalaat ak gis-gis a takk jànge ko ca nekkoon nañu di yu doon tàmbalee feeñ ci ay waxam di feeñe noonu it ci ay jëfam doon ko ni feeñe noonu it lool sax ci ay yëg-yëgam ci wàllu yaramam ba ca jëkk nag ca penktef yooya la di siiñ yooya moo di seetlu gaña am seetlu seetlu woon gisee ci ni fu weeru koor masanteroo sallallahu alayhi wa fukki fan yu mujj ya ci weeru koor te ca daan taqoog litikaaf te mooy ca jàkkam ja fukki fan yëpp ca jàkk ja la ko daan def sallallahu taala alayhi wa sallam di fa wéetal boroomam ko fa jaamu taqoog jàkka ji rekk nag di ful ay jaamoom sallallahu alayhi wa sallam jaamu yàlla subhanahu wa taala di ko ca wéetal صلى الله عليه وسلم جامم غوغو مو دان نيك نك تي فوكي فان يو مودي تي ويرو كور مو دان كو ديفه نونا تي جاكام جي دي الاعتكاف ويرو كور بوما سا نيو عليه الصلاه والسلام ني غيس ني فوكي فان لا دان فاتو ca jàkkaam ja fukki fan ya mat mu génn ñu wor noona la ko daan defe waaye koor ga tolloo woon ak atum fukkeel ma ca gàddaay ga yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def na ca jàkkaam ja ñaar fukki fan yu mat sëkk difa fa jaamu yàlla subhanahu wa ta'ala di ko fay wéetal génn ñu wor te ci fukkelu fan ya rek la daan yem waaye koor gi mu mujj woor alayhi salaatu wasalaam def na ñaar fukki fan ca jàkkaam ja takko faak wéetal yàlla subhanahu wa noona bu ko noon ni defe rek noona alayhi salaatu wasalaam kooram gu mujj googu nag mu tàmbalee fatoom ga ca fukkeelu fani weeri koor googa dañoo woor ba am fukki fan rek mu fatu ca jàkk ja te den daan woor ba am ñaar fukki fan mu fatu ca jàkk ja fukki fan yi mu mottele ko fa waaye bii moom fukki fan rek lañu ñu jot a woor alayhi salaatu wasalaam ñaar fukki fan yépp mu fatoo ko ca jàkkaam ja mooy rek uh, féetewoo def noonu mu ko daan baaxoo doon ko ni defe loola it bokk ci siiñ yi ci fenkatéef yi nga xam ni wonewu na ci moom sallallahu alayhi wa sallam am xalaat daal gis ni a def na nu mu baaxoowul doon ko ne defee noona mu bokk ci siiñ ya am na daal lumu nam waye waaye lan la kenn ñemewul bay xal di xalaat ni dundam gu tedd gi jeexna mu dëkk ma li wuy ji boromam subhanahu wa taala xel ñemewul a xalaat ba yegg fofa waye dal xam nañu daal mbir a ngi bëgg am mais ànd ak loolu lépp xel masul xalaat ni dundam gi moy jeex ñaarel bi fenk teef gi te mooy signe bi di màndargay dëddu àddunaam ñibbi kër yàlla subhanahu wa taala ca weeru kooram googale day ba tey am na luñ ca seetlu te moo di tadaarasuhu jibrilu alayhi salaam القرآن الكريم مرتين في رمضان ولم يكن جبريل عليه السلام يتدارس معه القرآن الكريم إلا مرة واحدة موي تاوير كورم غوغا ديغمو جوار صلى الله عليه وسلم غيس نيوني جبريل عليه السلام نيونا نفر سيك موم القران الكريم نياريون يون كور غوغول تي ويرو كور يمو جوتا فك ييب benn yoon rekk la jibril daan wàcce ci ci moom di nafarat ak moom alquranul karim waaye weeru koor gi mu mujj woor jibril wàcc na ci ñaari yoon di ci nafaraat ak moom alquran muy bokkit ba tey ca siiñ ya di fenkite fi mandargay dëddoom àdduna sallallahu alayhi wa ca ba ñu wooree koor googa ba ñu woree di weeru kori kooram gëmu mujje woor tàbbee ko ca shawwal mi topp ci weeru koor mooy bu ñu woree shawwal la ciy topp weer woowu dëgmal nag aj ba aj ga ëgsee wax na fi xajjatil wadaa'i ca ba muy jàngale aj خذوا عني مناسككم لعلي لا أحج بعد عامي هذا سيت لولين جانجي تمن نوني أجي نخ امانا كت جناو أتمي كت امانا دوتو مفي تخوتي أكيين جناو سما تخوى يتي بيتي عرفة توخجوني ملت عليه الصلاة والسلام وحاتناو jëme ko ce njabootam gu tedd ga ridwanullah alayhim ajmain di saxaaba ya ca fan yi minan ya te ba bokk na ca fenkitéef ya alayhi salaatu wassalaam wa waddaahum وودعهم في أوسط أيام التشريق في منى وقال عليه الصلاة والسلام فليبلغ الشاهد الغائب مبوك تفين كتف يدي سينيا ما نام تبير فاني منانيا تاجم غوغا لمو وخون تعرفا تبير فان يباركال يويت وخات نكو كيروك وحينو كويتا غوتوك نجابوتم نان لين آه ñi teewa tey li ma wax nañu ma ko jottalil muy dem ba ñi fekkewul teewuñu bu ñu ñëwee jot ci ñoom it ñuy jottali ba ñépp jot ci di ca rekk na mu ko waxe woon ca Arafa mu waxaat loola ca Muna loolu it muy ay wax yoo xam ni mënees na cee xalaate ne ñàkkul luy bëgg a am waaye taxul ba tey xel xalaat ni alayhi salaatu wasalaam dundam gu barkel gu tedd ga moo dëgmal jeex mu bokkit ba tey ca fenkteef ya unzilat alayhi sallallahu alayhi wa sallam suratu nasri fa arafa annahu lwidaau wa annahu nuciyat ilayhi nafsuhu sallallahu taala alayhi wa sallam maanaa ca fani leer ya ca moomalem at fani leer ya nag buñ ko dee wax ñooy yi ñuy bëgg a wax si mooy fukki fan yeeg ñaar bu weer tero ci fukkeelu fan yaak ñaar ak fukkeelu fan yaak ñett ak fukkeelu fan yaak ñeent ñooy fan yi weer di fan yi leer yi ndax bu ñu ajee ci fukkeelu fan ya di tabaski fukki fan yaak benn ak fukki fan yaak ñaar ak fukki fan yaak ñett ba ci fukki fan yaak ñeent yooyu yépp ci guddi leer ya lañuy bokk ca jamono yooya nag ci la saar wii واتي تيموم عليه الصلاة والسلام دي قلنا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فصبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جلسار وواتي تيموم إذا جاء ديم دكنا تسخصر يتو الأكسنا بنوبي نصر الله ندم بلال صبر تما يبور بدي مولانا تبارك وتعالى والفتح أك أبيك مي أبينك خليك غخيك يب ديكو دقلي سواتيك نولي ويوسي subhanak wa raayta annasa ngay gis nag nit ñi wet gu ne ñu jóge fa di wal wa noo yadoxuluuna fi diinillahi afwajan di tàbbeendoo si di wuyee see ndoo nag ci diine ji di kojug lislaam te yàlla subhanahu wa taala woote loola jëmee ci léegi nag tëralal nga naay yi fa sabbix bihamdi rabbika tëralal ngànnaay yi te sax rek ci di sàbbal ni nga koy mas ci defee jëmee ca sa boroom booleeg cant ya te di ko sant booleeg di ca jéggalu di ko jéggalu lool ndax innahu naka moom yàlla kaana tawwaaba kaana tawwaaba moolaay ahmed yàlla na ko yàlla fayal xeet bi sajjidi ba mawlaaya di sajid cheikh ahmed tijan si al maktum radiallahu anhu ni innahu kaana tawaaba yàlla ni ko yàlla di buur bi nga xam ni di boroom bi nga xam ni sawar naa jéggal jéggalu yu tukkee ci ku mel ni yow sawar na lool ci jéggala loolu te wuyu loola waaye saar woowa wala saar woo wii di iza jaa nasrullahi ba mu wàccee noonu ci moom it alayhi salaatu wasalaam mu xamee ca yëgee ca lii day ak tàggatoo la mu xamee te it ni sallallahu alayhi wa a tàgg nañ ko ba kenam bi mu yëgee ca ko mu yëgee ca loola ni tàgg nañ ko ba kenam bi alayhi salaatu wasalaam bokk na it ba tey ca siiñ ya di ca njaal benn weer wu digg di weer wi di safar alayhi salaatu wassalaam ca la génne woon dem Uhud ba mu demee it jullewaat na fa mboolem shuhadaa wu yëfa tëdd ñaanal leen ñoom ñépp ridwanullahi taala alayhim ajmain julleem ga nag ñooña ca na mu doon waxee nekkoon na yit dig tegtal gu doon déggaloo ni mu ngay tàggatoo ñiy dund di ca xamalaale tamit wa uxut di ña tëdd ci ni li ko fi dese moom alayhi salaatu wasalaam bareetul ci ay fan di wax ak way dund di waxak woy way yi ndax ba mu noppe ca na mu loon doon ñaanalee doon kona na wax ñoom sallallahu alayhi wa ca la wëlbatikoo nag sallallahu alayhi wa sallam waaxu nag wuti jàkkaam ja te mooy fee mu tëdd tey ca madina al munawwara wuti mimbaram ba sallallahu alayhi wa sallam ba yéeg ca taxaw fa alayhi salaatu wasalaam julit yépp jàkkaarloog moom muy wax ak ñoom nag nu mu masula waxeek ñoom te dafa àddu keroog rek bokk na ci la mu jëkk wax ni ah mel ni ku ne ah man rëcc naa leen muy xaw a niroog rek li wolof di wax naan ñàkk ngeen ma waxin woowu sallallahu alayhi wa sallam ba mu ko waxee naw yépp dogandoo keroog ku ne di xoolaat sa moroom ndax waxin woowu masuñu ko dégg mu waxe ko ni mu teg ca waxaat ni maa ngi giñ ni sallallahu alayhi wa sallam maa ngi jàkkaarloog dig ba ma sama boroom subhanahu wa taala digoon ca aljanna maa ngi seede ni maa ngi janlook loolu tekceni ce ni wallahi maa xiftu an tushriku baadi ragaluma ci ngeen bokkaale di di bokkaale di jaamu keneen ku dul yàlla ragaluma loolu ci seen diggante sama gannaaw li may ragal kay ci yéen moo di ngeen dema dema dem bay xëccoo te muy yéenu neen dema dema dema dem bay jëkkante ci seen biir te muy yéenu neen lii day ragal na mu dal leen sama gànnaaw te ku seetlu wile waxin di ci yégée ni waxiinu kilifa la guy tàggatoo kiy jabootam bokk na it ba tey ca fenkateef ya ca ñaar fukkeelu fan ya ak juróom-ñeent sallallahu alayhi wa sallam ci weeru diggi di safar daf caa demoon benn jët dëj am ku ñu doon denc ca Baqiya ca Madina alayhi salaatu wasalaam mu fekke woon ko nag doon taxawu kooku ba mu wàññeekoo nag ca bañ ko dencee ca xaprom moom kooka mu doon taxaw di ku baax kooku radiyallahu taala anhu muy dellu këram génn ba ca buntu baqiya rekk ca la ka bopp buy metti dale mu jël nijooram bu tedd ba tekk ci jëbi bopp buy metti ba ca buntu baqiya la ko dale naka la ko teg ci jëbi rek loxoom bu tedd ba sunu boroom xamal ko ca ni ko yëgal ko ci ni ko du bopp buy metti kese kese waaye convocation la boo jot bu tukkee ci man bu lay xamal ni a sa dund gu barkel gi day jeex na noona la yegge këram ak boppam buy metti boobu boobule ma nga fekk nag sunu yaay Aïcha radiyallahu taala anha moom it bobbaa ngay metti mu dar bobba moom it di wañaaru moom yaa Aïcha naan waara saa waara saa way sama bopp bi way sama bopp bi noonu yonent bi alayhi salaatu wasalaam ñëw ba tiim ko gis na muy wañaaroo naan way sama bopp bi way sama bopp bi alayhi salaatu wasalaam naan ka بل أنا والله ورأسا يا عائشة يا عائشة يانجي ونيارو نان ويسما ببي ويسما ببي ويسما ببي تي عائشة من رك ما ورا وخ ويسما بب بابا يننتبي عليه الصلاة والسلام خمونني روحو جي عائشة رضي الله تعالى عنها moo yëg dundam gu barkeel gi jeex ndax ba mu jëlee loxoom bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam teg ca jéem ba alayhi salaatu wasalaam ca bopp bokk boppam buy metti ba ne càpp-jàpp ca yoon wa di metti mu taf loxoom ca jëba yàlla yëgloo ko ca yëgalee ko foofu ni boppam boobu la di metti day ak yëgla la diggu tukkee na ca moom boroomam subhaanahu wa taala gu koy yëgal di ko xamal ni ko ruuxam gu sell gi day awoon na gannaaw adduna bi dëkk ma li boroomam subhaanahu wa taala te dootul geesu nag dootul wàññeeku di rekk mu yëgee xamee ca ni li ko fi dese ci fani aduna bareetul di rek na waaj ci génn aduna wuy ji boroomam looloo di la newoon la di la ruuxu jaa Aïcha radiyallahu taala anha yëgoon te xamul ni loolu la ba tax na alayhi salaatu wassalaam mettitu boppam boobule mu àggee noonu ca këram delluwul ginnaaw de waaye nag moom xam na ni sallallahu alayhi wa sallam ji Aïcha ruuxam moo yëg ni dundam gu tedd gi moom yonent bi jeex na waaye ji Aïcha xamu ko boba daal la ngay métti na bopp yonent bi doon méttee ndax ni mu amee woon ci moom cofeel ak ni mu ko miine li tubaab di wax télépathie moom it boppam di metti ba ko yonent bi waxee lool nag mu siggi ndeysaan fekk yonent bi di ko tooñaale pour bëgg mu génn ci ruq boobu muy xalaate ne ko waaw sa yow yaa ngi naan woy sama bopp bi woy sama bopp bi waaw so yow bu yàlla dogaloon nga nga jiitu ji mu jël la ma taxawula la sang la sang la jullee la sa borom amaat beneen soxna nag fekk daf ko bëgg génn ci ruq bi muy xalaate يبوكا فنان رك جي عايشة سيجيني وكا آه يو بغا وخنغو كو يو كي خنا سخل دفا نك تاك بنان سخنا نك فوفو دي خلط نك چي لول وايه بو دي لول من سوان بابي ميتة تول دي يمال نونو عليه الصلاة والسلام موم مونغي مونج رك خمني كوم جيني نچو رقو بو برك بحنا نخ انتلكتو يلا موم عايشة دي خلات te bu ko bàyyi wu gën a xalaatam rek xelam jëli loola mu daal di koy génne foofu nag dugal ko fee nag muy xultu alayhi salaatu wasalaam di muuñ rek xam ne comme génn na foofu rek alhamdulillah rabbil alamin waaye rek muy ànd ak boppam boobule ak sagoom su rëy soosule sallallahu alayhi wa sallam bopp bi delluwul gannaaw delluwul gannaaw bés bu jot rek muy gën di metti ba mujj nag def ci moom tàngaayu yaramam bu tedd wa sallallahu taala alayhi wa sallama mu daal di siburu عليه الصلاة والسلام عندك لولا عندك لولا لب بارك الله رك دي من رك وفي اليوم الثامن من ربيع الأول بدأ مرض موته صلى الله عليه وسلم بالصداع مع حرارة أصابه عند رجوعه من البقيع حيث شهد جنازة يوم الاثنين آخر شهر صفر بتحنا وفي هذه الحالة الوجاع يزداد شدة يلا ركسن sañ-sañam ak dogalam ca namu ko soobeek famu ko soobe yamale ci ñépp nag ci loolu subhanahu wa taala ba na ni muy nattoo ñépp ci lu ko soob ak ko soobe nattoo na ko tey noonu soppeem dib tànneefam ndawam la di këmu wóolu ko sangu mboolem sank yi imaamul xaramayni borom liyaawul xamdi sallallahu alayhi wa sallam ba tax na mbokk yi di mbokki julliti yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam feebar na mu ngi nii tëdd عليه الصلاة والسلام ببانغي ربي ربي نختارك متت انت الله محمد صلى الله عليه وسلم مغنيتد عندك وك يرم وتانغي جير نخ سيبرو بمتي وقتو ونو جابيني خنا ليغ موتاني متتو بوبامبا alayhi salaatu wasalaam di gën di tar ba dañuy mujj sax jël morso di ko tooyal ba mu tooy ñu di ko ko takkal ci bopp bi yeewal ko ko ba mu dëgër waaye daan nañ ca dema dema dem ba morso bu tooy boobu ñu ko daan yeewale bopp ba bu ñu ko ko yeewalee tuuti takk ko ci bopp bi rek bu yàggee tuuti rekk morso bi wow ndax tàngaayu bopp bi alayhi wa su ko defee ñu gaawantu tekki tooyalaat ko ba mu tooy ñu takkalati ko tuuti mu wowati ndax rekk ñépp ngi bëggandoo bopp bi sedd waaye tàngaay ba bopp bay sànni di ko génne mu di ko yëg day dem ba day wowal morso bu tooy bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekkee noonu nekkee ko ni noonu alayhi salaatu wassalaam waaye teewul la muy feebar feebar yépp nag jàmbaar la sallallahu alayhi wa sallam du ñànki du salit ànd ak feebar ba nag tàngaayu yaram waak bopp bay mettek yépp wa qad salla nabiyu sallallahu alayhi wa sallam binnaasi wa huwa maridun alayhi salaatu wassalaam فتبارك الله أحسن الخالقين آه، عندك لمي فيبر يبنك يمي فيبر يب تاول عليه الصلاة والسلام جيتني نتني إحدى عشرة يوما تيو جميع أيام مرضه أربعة عشر يوما صلى الله عليه وسلم li muy feebar yëpp teewul jiite na nit ñi fukki fan ak benn sallallahu alayhi wa sallam yëpp mu ngay góorgóorlu di ko def te tëraayu feebaram yëpp alayhi salaatu wa salaam fukki fan lañu ak ñeent alayhi salaatu wa salaam waaye ca juróom-ñaareeli fan yi tëraayu feebaram alayhi salaatu wa salaam ca la waa yàlla wàccee ci moom aaye bi mujj wàcce ci alquranul karim ci yàlla te moo di lan ci biir feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci biir feebaru yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla wàcce ci moom aaye bii nga xam ne moo mujj wàcce ci alquran wattaqu yawman turjauna fihi ila allah wattaqu yawman turjauna fihi ila allah يالا دي تي واخ نان واتو لين واتو دي خالات تكي دي راغال بس بي نين دي ген ادنا دي مو وي سمال يالا تي بير فيبر يونت بي لاكو واخ تي بابا فان يو نيو في ديسو يونت بي مو ген ادنا يالا نان واتو لين واتو تي دي دكي باي خيل فو نين تولو بس بوبو لي ngeen di génn àdduna di ma wuyu si ñu seetlu wax ji sunu borom subhanahu wa taala wax ak waxin wi di waxin wi nga xam ne waxee na ko noonu subhanahu wa taala wàccee ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne booba juróom-ñaari fan rek la yonent bi dese ci àdduna génn àdduna wuy ji boroomam dundam gu tedd gu barkeel ga ceex mu génn àdduna wuy yàlla yàlla wàcce keroog wax jii di aaya bi mujj wàcce ci moom ak li muy baax baax baax baax sallallahu taala alayhi wa sallam ak li muy tedd tedd tedd tedd صلى الله عليه وسلم اكلمي جن دكوني جن نيفي جن ني في گن نيب عليه الصلاه والسلام يالا خار بجروم جوروم نياري فان ديس تي دوندم يالا سبحانه وتعالى وخاك موم فوفو نيكون نكو نيب خماندو فوفو نان راغال لين بس بسيني فاني دوندو دي جيخه تي ادونه ngeen ci dee di ci génn àdduna di ma wuyu ragal leen bés boobule mbokk yi di mbokk jullit yi nanu leen wattu yàlla subhanahu wa taala suñu nee wattu nag mooy di xalaat fu ñu toll sunu digganteeg moom di ko bàyyi xel ci sunu lumu di ko bàyyi xel ci numu di ko bàyyi xelit ci fumu subhanahu wa taala subhanahu wa taala nañ leen bàyyi xel yàlla suñuy joppi xalaat daal nañuy ëppee doole fa moom xam ni yàlla subhanahu wa taala fawul te faluwul te ku dee ba téere ji ko ca kanamam di nga gën a xamee foofa ni yàlla fawul yàlla subhanahu wa taala foluwul nañuy wattu tey sax ci di wattu lépp lu xeetoo ci mpo lépp lu ci xeetoo nañ koy wattu ak fowe dëgg nañ koy wattu ba muccee ca te ku ko wattu nang ko war a wattoo yàlla musal la ca subhanahu wa taala muccee ko ni ci luy caaxaan caaxaan baaxul te fawantu it baaxul waaye ba am bés alayhi salaatu wasalaam ci biir fan yi tëraay yi feebaram a mu ne ñokket nag jóg daal di woolu abaamu woy hiba ko kaay gunge ma mu génn ànd ak moom mu jubali fan bàq ya di fa ko yàlla subhanahu wa taala yëgalee woon foofa ca boppam buy metti ba yëg yëg ba ko yàlla yëgaloon foofa xamal ka ni dundam gu tedd gu barkel gi day jeex na jëm na ci jeex maanaam mu wax sànq bi di aba muwayhib radiyallahu anhu ni ko kaay gunge ma ñu génn mu jubali bàq ya ba mu agsee noona ba taxaw ànd ak aba muwayhib رضي الله تعالى عنه تباقي متهو فأد صلى الله عليه وسلم نيوك نفتد رضوان الله عليهم أجمعين نيوك دون لين يغلني فان يو نيو موك في دسي موم صلى الله عليه وسلم مبوك سيك نيوم سين ترايبش كباك دي أبا مويهب رضي الله عنه موكو ديغ مو نيوك نيوم نان لين السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنتم سلفنا وإنا إن شاء الله بكم لاحقون صلى الله عليه وسلم ين يتدفيش ديين وي گم ني سبحانه وتعالى ديين ني في تد di këru ñi gëm ñi yàlla subhanahu wa taala maa leen di nuyu mandawal yàlla li di leen yëgloo si ni da ñoo jiitu si rek waaye bu soobee yàlla subhanahu wa taala buur bi di sunu borom bi leen fi ñu nit léegi ñu fekk si leen waxin woowu it ci yi nga xam ni rekk ca siiñ la te mooy fenkte fi jeexu dundam ga sallallahu alayhi wa sallam ca juróom natteeli fan yi tëraayam alayhi wa wasalaam ci fan yi weeru gàmm di rabiul awal ca la mettutu feebaram ba nag doon gën di yokkee ah yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal feebar na mu ngi nii tëdd nag ci sunu néegu yaay Maymuna radiyallahu taala anha di soxnaam su baax sa te soxnaam yépp a baax doone woon ko nag tamit di ndey ñépp waaye la muy feebar feebar feebar yépp sallallahu alayhi wa sallam mu woolu soxnaam ya yépp nag ca néegu yaay Maymuna di leen laaj nag ba ñu ko wuyisee mu naan waaw fan laa aye tey ndeysaan sunu yaay yu baax ya ni ko sang bi danga goro rekk moo tax ngay laaj foo aye waaye ñun gise nañu ba noppi waxtaan nañu ci sunu biir ba bokk nañu dëppoo ci ni xamandoo nañu ni ñun ñépp ci ni jàllantu beeg baagante bi sang bi mënatoo ko te Aïcha mii day moonu gën a féete ndaw yëkkati geeg tëralaat gi ñu jàpp ne moonu koy gën a mën batax na daal sang bi ñu ngi lay ñaan dëppoon nañ ca ba noppi nga tëddee ji sa tëraayu feebar bi ca nekk Aïcha boo taneeg jàmm nag nga soog a laaj nag soog a foo aye yow yonentub yàlla bi lépp nag taxul xel ñemee xalaat ni ci feebaram bi lay jaari wuy sunu borom subhanahu wa taala wér ak jàmm la ko ñëpp doon séentu doon ko xaar ci moom sallallahu alayhi wa sallam ndeysaan mu sant soxnaam yi nag sunu yaay yu baax yi gërëm leen ñaanal leen nag noonu nag ca la daal di wooloo ñaari rakkam ya di ñaari doomi baayam سيدنا علي كرم الله وجهه أك سيدنا فضل بن عباس رضوان الله تعالى عليهم أجمعين بنيو نيوي ويسيكو موني ناك نانيو كو ديمالي ييكاتيكو نيو كو تاكال بابا بامو دغر صلى الله عليه وسلم نخ ا أه na babba ɗon mettee ɗon koni rawwi rawee taron nalor jamom ngirreke mettit wutar waye ñaari doomi bayam ya ñun ko roofo muy sayiduna aliyun ak sayiduna fadlu radiallahu taala anhuma kii ngi ko féete ci wàllu neejooram kii ngi ko féete ci wàllu càmmoñam نخلا ولم يكن يقدر على القيام من مجلسه صلى الله تعالى عليه wasallam yàlla rekk man noonu amatul kàttan gu mu yëkkatee boppam ci toogaayam bi mu toog ni sax amul kàttan gu mu yëkkatee boppam noonu ñaari rakkam yu tedd yu baax yooyu di ñaari doomam yu baax yooyu ñu róofoo seen mag ja di sen sang sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam xam neexul ba neexul waye sang bi nak feebar na noonu ñu ko rofo nak yekati ko ba mu taxaw alayhi salatu wassalaam mu tàllal nak ñaari loxom yu tedd ya gal ko ci sen kaw lëngee ko ñom ñaar ci seeni wagg ya nekkee ko noonu nag ci seen diggante àndee koog taaram bu rëy ba nag sallallahu alayhi wa lu feebar bi gën di metti muy gën di taaru sallallahu alayhi wa sallam waaye naka la taxawe noonu ci seen diggante ñoom ñaar bëgg nag séqi jéegoom ya àndee koog ñoom sallallahu alayhi wa sallam tànk ya bañ doxin wa diib lool tànkam yu tedd ya nag ndeysaan di direeku muy bengeer ak xar kanamam gu leer gu rafet ka ndax ca moom la taariyam de sallallahu alayhi wa sallam tax bala feebar bay di tarakay metti yépp alayhi salaatu wassalaam taaram baa ngay yokk xar kanam ngay nes nesi alayhi salaatu muy tumpaas ndànk nag di tumpaas nekk ci diggante ñaari doomi baayam yooyu la nag wutee ju ko fan nekk ya Aïcha radiyallahu taala anha keroog ña fa nekkoon ñépp ku nekk nga wëlbatiku ci wet bay fa sa bopp sëlmu say rangooñ ñépp àndandoo di jooyandoo xam ni rekk ni yàlla rekk sañ subhanahu wa taala di dogale kay amale lu ko sooba numu mu soobe fu mu ko soobe subhanahu wa taala ci cañ defam tax ba imaamul xaramay di borom daawul xamti صلى الله عليه وسلم كي يالا صبل كي بوبم تانال كو بوبم وولول كو بوبم يونيكو عندك يويب تيول يننتبي صلى الله عليه وسلم فيبرنا عليه الصلاة والسلام سيدنا منا aliyun karamallahu waca ak sayduna fadlu radiallahu anhuma ñoo nekkoon di ñu ko doon dimbali ci su bëggee jóg ak su bëggee fa tabarakallahu dem ci jàkka jeeg yooyu le waaye noonu ñu ko téyee sayyidatuna Aïcha radiyallahu taala moom mu nga gaawantu rek jiitu ji leen ca néegam taxaw fa nag di xaar sangam alayhi salaatu wassalaam naka la ñu agsi ak rek mu gàttandu leen daal di gàttandu yonent bi nag nangoo ko ci seeni loxo moom Aïcha ci loxoom yu sell ya waaye mu ngay jooy rek nag moom Aïcha toog moom cellalam bu tedd ba uuf ko mel ni ku yor sa doom rek jël boppam bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam tëral ko ci kawam nag moom Aïcha mu ngay jàng nag bépp léemaay ak bépp muslaay bo xam ni mokkale woon ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam di ko léemoo rek di ko ko bu euf ci loxo bi di ko ko te lu mu ci yaramu yonenti bi rayat ko mom ci yaramam ngir di ko ci mom sallallahu alayhi wa sallam alayhi salaatu wasallam nag mu ngay wax lu mu wax laa ilaha illallah لا إله إلا الله إن للموت سكرات لا إله إلا الله نان يالا ركي بور أمول بن بور بدول يالا سبحانه وتعالى سكرات إندال نك نيلا متى أمول بن بور بدول يالا يالا ركي بور سبحانه وتعالى باتيو إلا جابو ديكو وح يا عائشة رضي الله تعالى عنها mu nga léemoo kay ñaan mu ngay léemoo kay ñaan di léemoo kay ñaan rek te lu mu ëf ci loxo bi raay ko ci yaramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko raaya woo moom ngir di ko barkeeloo ci li loxoom bu tedd ba dem ci yaramu ku tedd ki mu di ko barkeeloo waat ci yaramam alayhi salaatu wassalaam jàppoo rek baat boobu jàppoo ko rekk jàppoo baat bi jàppoo ko rekk di ko wax di ko wax te jàkk ji ak néeg bi benn la néeg yaa Aïcha ak jàkk ji benn la rido rekk la doxale ca buntu néeg ba ak buntu jàkk ja baat yooyu nag dem na ba génn nañu rido bi rek fekk mag ñi ci jàkka ji ñu toog bu ko defee rek ñu téye ñu foofu incha allahu taala bu ñu dellu suwaatee ak jàmm wax ña ca jàkka ji ba ñu déggee la mu doon wax te mooy tudd yi mu doon tudd yàlla subhanahu wa taala ya ca xew ak ya ca jib ak nañu def bu ñu dellu suwaatee jàmm incha allahu taala ñu wax na loola demee woon doole feddali sunuy cofeel ak suñu doon di njaboot ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di tàggooti nag tàggoo bu dul tàggoo incha allahu taala ba dellu subaat ak jàmm ngeen bal ñu àq bal nañ leen yàlla ci mbaaxam yàlla ñu boole baal ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam yàlla na nu yàlla nangul sunu doon di njaboot ak sunu cofeel ci moom te yàlla nañu yàlla may ñu mujj ci loxoy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.